salaamaaleykum di nuyu ñu fi teew ñëpp di nuyu membre patience fu yëpp di nuyu waa Tivaouane di nuyu euh, région de Thiès nuyu Sénégal gi yëpp di nuyu sunu rakk ji di Pape Doudou di borom Tivactu di nuyu Kéba di waxee nag ci kàddu président. Euh, Idrissa Ndoye ak euh, tous les membres du Patience Foot euh, tey nag dañ fi ñëw juste pour lancer benn appel benn mën nañu invitation lay doon sunu un an d'existence ici à Tivaouane di Patience Foot ñu war ko fêter le 19 décembre bi ak le 18 incha allah. Euh, fête bi nag ñi ngi ci woo ñëpp képp koo xam ni sport soxol na la parce que lii ñuy def nii di pour ñun dong pour waa Tivaouane gépp la kon donc ñi ngi ci woo képp koo xam ni sport soxal na la euh, di ci woo et puis euh, képp koo xam ni éducation soxal na la parce que étude sport la wax bu njëkk da nga naan dégg ñu naan sport étude mais léegi étude sport la ñu wax parce que ñii nga fi gis ñëpp ay xale lan euh, ñoom ñëpp dañuy jàng bu ñu jógee ci jàng ba soog a ñëw fii kon donc dañuy woo ñëpp ñoo xam ne wàllu sport ñor na leen wàllu éducation aussi tamit ñor na leen euh, programme bi nag euh, xam naa ni damay wuutu Idi rek parce que moom moo ñu gën a maîtriser programme bi ni muy tëddee mooy samedi bi muy le 18 bi incha allah ah, dinañ ci invité ay école de football yoo xam ne ñu ngi ci biir Tivaouane xam naa dinañ ci revenir aat incha allah parce que ñooñu am na ci ñoo xam ne informé nañ leen am na ñoo xam ne informé wul leen ah, samedi bi aussi tamit dinañ ci jouer ah, xam naa catégorie bu mag bi ñooy jouer dimanche incha allah boobu aussi tamit dinañ ci invité ay école de football. ay académie ñu ñëw fii nii incha allah fii ci sunu terrain muy terrain avenir nekk ci wetu sem Habib di nañ ci invité kat euh, maanaam euh, académie yi nekk biir Tivaouane yëpp ak ci département bi yëpp euh, bi ci des aussi tamit dinañ ci rendre hommage ñi nga xam ni ñoom lañ nekkaloon fii ci biir Tivaouane di ci jiital ki nga xam ne mooy sunu papa ay dara ku ci ne xam na ko fii ci biir Tivaouane département bi sax euh, région bi Sénégal gi yëpp parce que li mu def fii ci euh, sport ci Tivaouane yaakaar naa ni ñëpp xam nañ ko doon koo xam ni doon nañu soutenir doon koo xam ni doon nañu ñaax doon na koo xam ni dina doon nañu teg ci yoon aussi euh, d'ailleurs bi ñu mujjee def sunu formation licence D bi sax. moom moo ñu poussé ba tax ñu def ko réccu wuñ ko fekkewuñ ko nag fekke ko nag mais ñu ngi koy ñaanal dinañ ko ci rendre hommage dinañ ci rendre hommage aussi tamit euh, suñu benn grand frère boo xam ne nekkoon na fii ci koñ bi euh, muy Médine euh, di Baba Sow ñëpp xamoon ko nga xam ni joué na fii ci ASC Médine joué na ci góorgóorlu ñëpp xam ko nag dëgg yàlla ñu war ko ci rendre hommage moom it aussi euh, dinañ ci rendre hommage aussi tamit ki nga xam ni mooy euh, Abdou Karim Fall mi nga xam ni génn na àdduna récemment ñu gën koo xam ci kitimu dëkkoon fii nga xam ni mooy Médine euh, d'ailleurs am na benn jarbaatam sax boo xam ni mi ngi fii ci patience foot moom aussi dinañ ko rendre hommage incha allah programme bi daal xam naa ni dina bari mais du nu mën a citer lépp. am na si yow aussi tamit ay invité yoo xam ne invité surprise lay doon euh, dinañu ñëw dinañu teew euh, am na parrain aussi tamit parrain bi nag du caagi ni dañu ñëw pour politique du caagi ni euh, dañu ñëw bu patience dafay politique déedéet dafa fekk ni rek sunu président muy Idrissa Ndoye moom moo jël initiative bi ni day ne bis bi ki nga xam ni mooy Abdoulaye Ndiaye Ngalgou ku ne nag mënoon nañ ko koo parrainer mais moom moo jël initiative ni journée bii nga xam ni mooy sunu premier année d'existence dinañ ko parrainer Abdoulaye Ndiaye euh, Ngalgou euh, di ci woo ñëpp nag di ci woo bépp képp koo xam ni autorité la bu nekk biir Tivaouane bépp sportif boo xam ni yaa ngi biir ti Tivaouane bàyyiwuñ kenn euh, ñi ngi woo ñëpp di nuyuwaat bu baax a baax a baax di jéggaluwaat aussi tamit di jégaluwaat bu baax a baax euh, euh, waa Tivactu di leen ñaanal aussi tamit ñoom it seen liggéey bi euh, yàlla def ci ndam moom muy sunu rakk di Pape Doudou am ambition dëgg dëgg wax dëgg yàlla jàng ko nag loolu nag bokk ko bokk la ñi xam ne ñoo jékki-jékki rek jël seen caméra dem mais daf ko jàng di ko ñaanal aussi tamit lii mu yéene yàlla nag ko yàlla defal di nuyu waa patience foot yëpp di nuyu. sunu xarit bi nga xam ne moom mooy euh, premier euh, supporter euh, di dirigeant aussi tamit di Modou Diagne nga xam ni bu xale yi dee football wala ñu am compétition day bàyyi léppam lépp ngir xale yi am ndam lépp ngir xale yi bëgg et puis aussi bi may lancé aussi tamit mooy patience foot du sport rek la ñuy pratiquer ñi nga fi gis ñii ñëpp. ay élève lan ba pare gëm seen bopp ni mënuñoo réussir euh, sans études yi pour ñu réussir ci football bi donc il faut ñu réussir ci kii bi parce que ñun li leen exiger mooy ku ci def premier semestre mooy ñi nga xam ne ñoo ne collège ku ci def premier semestre boo amul moyen da ngay arrêté ñun loolu lañ leen exiger ñi nga xam ne ñoo ne ci primaire yi ku ci def compo boo amul moyen da ngay arrêté. ba tax ñoom ñëpp ñi ngi góorgóorlu di am ay moyens yu baax d'ailleurs am na si ñoo xam ne sax ci jour dimanche bi euh, danañ leen décorer mooy cinq meilleurs élèves yi nga xam ni ñoom lañu ñu amoon daaw euh, ba tax dañ bëgg ñu motiver ñi nga xam ni ren aussi tamit déwén bëgg nañu ñu décorer leen ren bu ñu ñi nga xam ne ñooy cinq meilleurs daaw yi euh, ren aussi tamit dina am si ñoo xam ne dinañ góorgóorlu pour déwén ñu mën leen a décorer. Euh, en grosso modo daal lii daal laa xam ne doon euh, wax bu fekkee am dinaan am leneen luñ ciy dolli incha allah dinañ ko dolliwaat incha allah jërëjëf. asalaamaaleykum waaw du nuyu ñëpp du nuyu ñi fi nekk yëpp sant yàlla bu baax di kontaan ci programme bi as def nii école football bi nag jamono bi yoon lañu ci waxtaan ba am fu mu ñu mën a yóbbu. parce que euh, école football bi ñëpp war ràññee la te xale yaa ngi liggéey ni ñu war a liggéey ñu ngi leen liggéey ñu war liggéey waaw te jamono bi dañ toll jamono politique autorisé yaakaar naa ne bu neexee yàlla ñoom ñëpp a ngi ñoom ñëpp a ngi ñëw pour waxtaan ak ñun waaye suñ sañoon école football bi comme ni ko asporo Asparog waxee rek ñëpp ko moom li tax na école bi gën maa neex mooy xale yi ku nekk da ngaa jox sa morom cër te école football bi. waxuma dara waaye yar gi ci am rek ak ak ak ak cër joxante bi ci am moo tax man ma gën ci ma gën koo ñeme football nag du du ànd ak caaxaan surtout ma ci luñ nekk nii trois heures dana fekk ñoom ñëpp ñëw entrement te yaakaar naa loolu ku bëgg rek moo ko man kon dèjà kon bu loolu amee tey en tant que Pape Doudou di xaritu ass def lii ngir dooleel ko kon loolu yaakaar naa amuñ fayam te loolu lu ko koy waral nit ku baax rek moo la ko mën a defal te yaakaar naa Pape Doudou jaar na fu ne ci football kon tey bu demee ba def lii rek moom xam na ne kon jàppale as jàppale erakam moo tax mu def lii kon nag yal nañu yàlla jàppale te kontaan naa bu baax a baax a baax baax waxuma dara waaye programme bi ni ko as defe nii rek rafet na sell na te yal nañ yàlla may ndam yal nañu yàlla may ndam bu baax tu waaw nag léegi jamono bi ku ne ku ne ku ne yaa ngi politique suñ demee ne am ci ku dal suñu xel boo ñëwee. yor nañ suñu ay carte yor nañ suñu doole yor nañ suñu xalaat ànd ci yow nga jàppale ñi buntu boo mënta am ci école football bi xeebuñ ko ku ñu jàppale rek la ñuy wër ku ñu jàppale ñu jàppale la kon gars yi asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa yi ñoo leen nuyu yéen ñëpp di leen ziare di si turu patience foot di wax si turu gars man maa ngi tudd Mouhamed Dabo. dëkk Tivaouane di présenté wu en tant que capitaine de Patience Foot di wax gars yi juste rek pour ñun ñëpp ñu ñoo bokk même bëgg-bëgg benn bëgg-bëgg lañ bëgg rek ñun ñuy toog fi ñëpp ñoo bokk même couleur tamit Patience Foot moo ñu ñor et puis avenir ñëpp luñ bëgg mooy que jàpp nañ ni football war nañ ci mën a réussir te bien sûr que mën a nekk chaque jour. ak personne ku nekk ak sa gëm-gëm boo jàppee ni lii war nga ci man a réussir di nga ci réussir te aussi ñu ngi lancé appel pour ñi nga xam ni ñoo bëgg sport te malgré que nekkuñu ci yeneen centre yi ñu di leen woo bu baax ñu ni patience foot ubbi na porte yëpp képp ku bëgg ñëw mën nga ñëw incha allah ñun ñoo ngi pare ñëpp pour képp ku ñëw ñu ñu dalal la et puis li ñuy lancé rek mooy ñu ngi préparé sunu sunu anniversaire de Patience Foot muy que le 19 le 17 et le 18 décembre yaay un an rek presque incha allah moom la ñuy am nii nii te gis ngeen ñun ñëpp ku nekk ak li nga fi taxawee parce que ñun ñëpp bu ñu xoolee dañoo ñëw pour taxawal lenn loo xam ne moom lañ bokk muy suñu bëgg-bëgg académie bi nag yaatu na parce que ñu ngi def ay sorte yoo xam ni am na solo yu am am am solo sax parce que gars yi ñun ñëpp ñu ngi ma un an lañ fi am mais ñëpp ñu ngi bàyyi xel parce que Patience Foot te def nañ fi jaloore bu nekk te am nañ façon joueur bu ne talent bu nekk moo ngi fi fi am nañ talant bu nekk et puis ñoo ngi woo ñëpp daal sama moroom yi en tout cas ñi nga xam ni bëgg nañ football te football intéressé na leen ok merci beaucoup. gars yi maa leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di leen jox seen wàccuwaay bu baax je me présente je m'appelle Abonia capitaine des cadets de la Tapance de football club ñu leen di ziar bu baax a baax di wax ne ñi ngi feete suñu un bëgg nañ incha allah balaa ñu feete suñu deuxième année yàlla def ay professionnel génn si bu baax te ñu ngi lancé appel pour ñëpp suñuy parents ak euh, suñuy xarit suñuy am di jàmm ñu ñëw incha allah le 17 ak le 18 ak le ñëw seetaan si aussi tamit ñoo ngi lancé appel à tous les autorités du Tivaouane parce que Tivaouane yàgg naa am ay joueurs yu mag a mag mais yàlla defagul professionnel génne fi yaakaar naa ni professionnel dafay war a génn d'ici quelque temps incha allah incha allah professionnel dina fi génn bu baax a baax patience football club nag yaatu na lu bëree bëri bëri ubbil nañ buntu képp koo xamante ni si nii bëgg nga ñëw bokk te incha allah yaakaar naa ni sunu fête bii di ñëw muy le 18 ak le 19. incha allah dinañ ko pare ak suñuy coach suñuy adjoint ak suñuy dirigeant ak euh, tous les membres yoo xamante ne si nii ñu ngi ci biir patience di woo parents ñi nga xamante ne ñoo nekk biir patience football club ñëpp ñëpp ñu ñëw incha allah le 19 ak le 18 ñëw seetaan seen doom te xam ne tamit football euh, passion la rek gëm-gëm la boo xamante ne si ni dañ ko war a atteindre incha allah te incha allah on va réussir dans le foot merci beaucoup.